ba nit taxaw naan ay ay sàcc lañu. ba nit taxaw naan ay détourneur de deniers publics lañu. ma ne man doon sàcc moo ma gënal doon fenkat. kuy bi ma ne. wax bu kannasoo. ka koy déggee nite. dama ne man doon sàcc moo ma gënal doon fenkat. Ah, waxuma la nag fenkat boo xam ne. fenkat boo xam ne. justice ci boppam ñoom ñoo ne yow fenkat nga. chef de ah, ah, eh, bi sànni naa ko. jërëjëf ay bëggee bëggee Matar bu Sonko la ni bëggee ñëpp di leen baalu ak yéen ñëpp si tabaski bi nag di baalu ñëpp ak surtout sama abonné yi di leen baalu ak di leen baalu ak di wax ko abonné wu na nga abonné bi bés kër sama gars yi maa ngi ñëw si démo ji ngeen gis si kaw mi Bougane Gueye Dany moo xawma lu ko métti quoi ñu ngi jógee si tabaski ñëpp di baalante ak nga ñëw génn di def attaque personnellement quoi naan ay man sàcc moo a gënal fenkat fii kat moo koy fenkat yow nangu nga ne yow sàcc nga rek léegi ku ne yow nga quoi au moins mais lan moo la métti demal nga fay tey impôt une deux trois bu ñu waxee nga mooy doomu aadama boo ñi nga xam ne amaguñ dara sax bu ñu waree fay impôt dañu fay impôt voilà waxuma si jumaa biir jumaa yaa ngi ñàkkal bëri forme di attaqué personnel koo xam ne yow attaqué wu la tant que jour Tabaski nga war a génn baalu nit ñi àq mais yow kenn xamul lan moo la métti quoi franchement tudd bi ñëpp am nañ xarit si jàmm ak salaam feetu ñëpp di baalante àq oto yomb elment rek indi ñëpp nekk seen jàmm bugaan nga génn yow sa xol bi di métti da ngaa sonn quoi franchement ah de opposition 50 nga nar a nekk si opposition parce que ñun incha allah dañ gouverner maximum 50 ans dinañ ko ah. jub yow ya mën nek patron keur dof quoi ah, sama gars di di ñep ñëpp bref xanaa bref so ko la nga abonné partager like moo bëgg vidéo bi bu ngaa ngay dañu def ci nako ko gars yëpp partager tey abonné impo ci si cartonu yalla suñu borom bi nga fay impo bu fekkante mo tax ngay nek ni di bel naan Ousmane Sonko euh du wax du koy wax dëgg di wax lu ne Sonko yeen ñaar du combat wallahi yak Sonko du ma sa nek combat iñaante bi nek ci yow moy ñak nangul gi nga ñak nangul Ousmane Sonko loolu fi mu toll mooy dagg sa xol bi quoi alal doo yor yàq nga ko si affaire yi politique bi di jéem a buuxante ak Ousmane Sonko di jéem a jaay ne xaalis. Naby Vision. li jëndee noonu xaalis xaalis mënatuñoo jënd suñu dignité moo ëpp xaalis moo tax man la yow commune sax mënoo kaa jiite mënoo nekk maire sa biir kër sax yow mënoo kaa jiite te preuve mooy Démé Ndiaye yaa moom mais mënoo kaa jiite quoi yow Démé Ndiaye groupe Démé Ndiaye yaa moom mais mënoo ko jiite parce que xam-xam bu ko jiite sax amoo ko quoi la nga fay jaay mooy doole ak dem wax lu ma neex quoi. dinañ wax lu ma neex man maa yor sama xaalis maay fay sa ni ngay def nii train bi daf daf la fay bàyyi bu yàgg te yëgoo ko quoi. pour yow ba léegi nii ñu ngi si élection yi di xaar deuxième tour romb noonu foofu noonu nangul yàlla suñu borom dogal yow ku moom xaar mi rek nga bàyyi buum bi quoi yow rek yaa am télé biir Sénégal dama nga fay impôt mënoo muusa ka màcc ba doo fay impôt di nga fay boo fay ñu tëj say compte boo fayul ñu tëj sa ay compte te doo si man dara te bàyyil Ousmane Sonko bi ngay manqué de respect naan ay waxul dëgg di saaga yoonam Sonko dafa ñu tere saaga mais bis boo waxatee Sonko loolu noonu dinañ la dagal quoi dinañ la saaga il faut nga respecté Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye duñ sa ay morom ñu ñu sa ay morom quoi xaalis bi ngay jaay loolu xaalis ñun di jëntee ñun xaalis ñun dignité lan àndal defar pour Sénégal ngay nekk une deux trois ay nangam musuma yoral impôt dara ñàkk yoral impôt moo tax ñu tëj say compte moo tax nga jël ay dulkat teg leen si télé bi pour ñu génne pourquoi alaaj man sa Diop ba mu taxawee di la di laajte compte yi la tax ñu tëj ko nangu woo woon a leeral li tax nga génnoon di yuuxu ba tax seen diggante am ay ñaga ñaxas ni ba moom mu démissionné foofu noonu naa fekk gi nga nekk nga war a génn. saa bu gàgg bu càng bu gàgg saa yow nit yi da nga lay gën a ngay gën di gàgg saawaay bu gàgg nekkal nit tabaski nañ nekk nit yi di baalante àq yow nga yee fitna. yow ràmbaaj nga de gandi naa feex nga te ni du seytaane nga saa waa ji ngay gaaral yow saa yow fenkat sax yow moo la gën moo la tane barki seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que xam tax bokkoo si diine lislaam yow jumaa bi nga doon jullee noon danga la fa waroon dàq ak dàq ji laa xay yat barki alxuraanul karim du samay wax de yàllaa ko wax yow sariya rey na la sariya rey na la bu yàgg sa ñaarel bi nga takk noonu da nga ko ëmbal ba pare doo koy tax waaw xam nga sariya rey na la bu yàgg aji sar fi nga ko téye gaan saa waay nàmp ko may ko cinq cent mille francs loolu dëgg la Mola Morgan li mu wax noonu yëpp dëgg la dama man loolu xam naa ko bu yàgg balaay di ko wax yow xamal sa bopp yàq nga fayda trop yow doo nitu dara mañ suñ jàmm yow ba ma dëmm nga xaw ma amoo njëriñ pour Sénégal égoïste nga opportuniste nga sa bopp la ngay lijjanti waaw yow tos ñabe bu nëbbi nga ngay bat bati am nga chance si julli lañ nekk tabaski waaye nañ lijjanti sa dossier léegi yàggatul dëgg mooy mujj léegi léegi xaaral. nag xam naa aw ma tabaski de nit yaa ngi baalo may saaga ndey quoi xool ma paa bi réew mi réew mi fu mu toll nii tabaski bi daa mel ni bari nay doomi xaraam de bugaan yaa ngi jóge julli ji yeggagoo sa Naby Vision Ousmane Sonko Ousmane waxul tur ba léegi tudd la yow yow yaa gën a doon doomi xaraam ci réew mi yow sàcc nga ku la ko waxul ñemewu yow yow yow paa doomi xaraam yi lébu xaw ma association lébu xaw ma lu mu doon yéen ñëpp a yem ak Diouf mii ne ci kaw ay imbécile ngeen mais da ngeen di wax rek gis nga ñii Ousmane Sonko ak ñoom Basirou Diomaye ñii maanaam ñun baadoole yi ñun ñoo cotisé suñu xaalis du question seen milliards lañ jël de fal leen ñun ñoo cotisé ay 1000 francs 2000 3000 diaspora bi ah yëpp ñoo cotisé ñu fal leen. ñun faluñu leen pour ñu toog maanaam di defar réew meeg di. réew mi xam nañ ne mënuñu ko defar ci benn at mënuñu ko defar ci ñaari at mënuñu ko defar ci ñetti at. parce que réew mi li fi yàqu dafa bari ndax xoolal collectif lébu bi ay imbécile bu ñu we Bassirou Diomaye Faye lañ ko woowee lu mu andi alalu réew mi jox leen ko ñu lekk ko. ah loolu donc lañ ko doyee lañ ko doyee lan lañ ko doyee lu dul loolu parce que collectif Lébu bi lan lan lañ doyee Bassirou Diomaye Faye nañ waxante dëgg ñoom mënuñoo tabax ubbiwuñu as ubbiwuñu société. Ah, jënduñu gaal dugal ci géej gi jënduñu bato ji defuñu dara. Bassirou ñëw seet si leen àndaale xaalisu sénégalais loolu dong lañ ko doy du leneen lan lañ ko doy lu dul loolu Bougane Gueye buy attaqué Ousmane Sonko lan la koy attaqué ñàkk fay impôt la koy attaqué du leneen. ñak fay impôt juuf mi mo gëna torox ci sénégal torox juuf mom man man man man bugguma ci yoon sa wax xam nga li moy da ngay wax wax wax wax ah ba laal sa mbokk man looloo ma dal dama japp ni ci di len saga di len saga ba sama jour jotna juuf ngi lan la koy wax juuf lan la koy wax ah ki, ah lan la koy wax saga na ñepp fu mu toll sama tour mo jot ah mooy saaga sa bopp loolu laa war a def Diouf parce que su ma ko saaga sama bopp laa saaga. Naby ah, Vision xam nga kii vrai imbécile la ah alalu askan bi ah yow nga jël di ko dawale yow yow ñoom ñoom Samuel Eto'o ñoom doroog Drogba ñooñu ñëpp am na lu ñuy def ah ba ñoom Sadio Mané barki Dembo Ndiaye ah ñooñu ñëpp am na lu ñu defal ci seen kii yi même boo yi def sax waa boo yi fubal ay jaraaf ak ay ay ay ay ay ay waali daan ak boo yi ndaw ñooñu sax. am na lu ñuy réagir ci ci seen kii yi ci seen euh, koñ yi mais yow naada dara rien imbécile guy taxawaalu di mandi rek ah ba pare ngay am looy expliquer ah fu mu toll nii xam nañ ne système mu doomi xaraam la mais gis nga li ñu teg nii bu yeboo ngeen teggi seen tànk ndànk amul collectif amul dem tuubaaga amul dem Kaolack ba amul dem leneen. Naby Vision màggal bu dotee. Basiru moo xam bu ko neexee na dem seeti ji ku ko neex Basiru terewuñ ko mu seeti ji ket mais liñ ko tere mooy suñu alalu réew mi bu mu ko jox benn imbécile ci réew mi. réew mi amul kenn ku ko moom jumaa yeeg jàq yi ngeen tabax sax dafa bëri jaratul tabax jumaa tabax jàq parce que bu fekkee ne da ngeen di tabax jumaa ba pare ak jàq ba pare di laaj laajte xaalis jaru ko parce que da ngeen di tabax jumaa teg fa kenn nit du liggéey du xëy du gontu tabaski jot ngeen di laaj xar ay xaalis ay milliards la ñuy génne pour tabaski jox leen ko pour lan juma yek jàkk dañu wara toj xaj gi ah da ngay gis benn quartier 39 jak 100 juma ci bir benn quartier. nabi Vision ñaari ñaari keur ngeen ngeen jënd seen ñetti tonu ciment tabax fa jak tek fa nit koku nak du liggey ah ngeen bëgg yaakar lool yépp ci état ah lool fan la am makka sa amu fa ah saram ndeyu li quoi li ken xamul ndax diine la ndax lu mu doon parce que li li du diine quoi li du diine kenn xamul lu mu doon. Bougane deuxième tour Cheikh Bara nee na fenn yuñ certifié nga xam ne justice moo koy àtte nee na tane na de parce que loolu am na werante mais duul yi nga duuloon nag kunkaande duul ko ak yonent boobu ne feeñoon Kolda fen ko looloo di fen maanaam wax loo xam ne ku ko dégg xam ne lii ay fen la mooy lan nga taxaw ne candidat diw bu demee élection moom lay jàppale. mu def élection nga xëy na xëy na naan deuxième tour ngay xaar. waa kër gi tasaaroo leen na ne xool foo jëm tamit mi ngi mi ngi tàmbalee ci maanaam nax sa employé bu biiral ko xam nga bala nga koy biiral faaw nga fen ko moom di nga ko wax lu dul dëgg <laughs> am na ci Sénégal gi benn patron de ko def benn journaliste bu nekkoon ci biir këram mu biiral beneen xaritu jabaram <laughs> buñ dugg ci yàqante waaye barki yonente bi boo bëggee mu ñaaw de Eh, deuxième tour Naby Vision. que eh, Abdoulaye Diop xaas nag nee na ndeysaan li la dal daa métti sa sa soxna nga ñàkk ko Sénégal yëpp métti lu ko ndax soxna si daa baax bokk ci famille bu baax nag yàlla nag nattoo ko mu nga doon jëkkëram <laughs> suñ borom jëlee ko fi yàlla na ko yàlla yërëm nga jógee fa waat élection yi ñëw Sénégal yëpp di voté nga deuxième tour ngay xaar deuxième tour amul nee na lii moo jaxase sa bopp bi yenoon na maanaa nag. parce que ju jumaay Serigne Touba ji ci Masaalikul Jinaan nit ñi di julli di baalante ak amoo loo fay nekkee lu xataraayu te ki ngay waxal du la mas a tontu parce que ay goneem sax ñoo la tiim ñoo la tiim ndeysaan yàlla na yàlla may xool muñ Naby Vision <laughs> biiral nag baaxul képp ku koy def na ko ba